اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا mbokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu borom tabaraka wa taala julli ci ab yonentam alayhi salaatu wasalaam moo ngi leen di nuyu di leen sant di leen ndokkeel ci guddi gi guddi gu mag gi nu fi dajale guddi gu mag gi nga xam ne moo nu fi dajale muy yaakaar nga ñëw ngir màggal borom guddi gi moo gënal sunu borom lépp lu mu bind gënal ko lépp loo xam ne dafa dellu ci moom war koo jaamu guddi nga xam ne ci la gane adduna di ko ulemaa yi natte moo tolloo guddi gi gàpp lépp wuy yow mu doom aadama am cosaanam mooy guddi gi nga xam ne moo ñëw ci guddi gi dafay mbindeef moo xam ne léppam yërmande la dafa ne innama ana rahmatul muhdatin du ma leen lu dul yërmande yàlla ju mu indi ci adduna bi muy yërmande joo xam ne dajal na jullit ak kuru jullit ak réer la te gépp réer safara la jëm kon benn bidaa bu ñu mën a rafetal day daldi upp bopp ñi xam mu wax ne bidaa boo gis ak réer la te réer gépp mu nga jëm safara kon gam ne li dem ne ummati laa tajtami ala dalalatin sama xeet wi du daje mukk ci loo xam ne ak réer la te buñ seetee ummatu nabi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono yii ak yi ko jiitu doomu aadama yépp jullit ñépp daje nañu ci màggal jullug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon li mu waxoon ne sama xeet wi du daje ci ak réer kon te ñu daje ci gàmmu gàmmu di ak réer kenn di bidaa ndax bidaa bu nekk ak réer la kon dal di dàqu lu ñuy wax ne bidaa bu rafet bidaa bu rafet kon amul ndax gannaaw bidaa bu nekk rek safara la jëm te ak réer la te xeetam bi du ñu daje ci réer te daje nañ ci gàmmu te gàmmu doomu aadama yi ci adduna yépp te ñu jullit dañ koy def ñu dàq kon loolu màggal itam bu ñu ko seetee ni ki gàmmu lu ko waral moo di sopp ki nga xam ne da ngay fàttaliku bisu juddoom bisu juddoom nga xam ne ci nga am li nga am lépp ci nga ko am nga bëgg ko bëgg koo xam ne moo la gënal sa bopp mooy tax sa ngëm mat bëgg boobu nga ko bëgg tax ngay màggal bisam kenn xamul lu mu ëmb ci tuyaaba dafa bari bu loolu wéyee dañu ne inda dikri saalihiina tanzilu rahmatu gannaaw ku ñuy waxtaane nit ñi baax ñi yërmande yàlla day wàcc kon rawatina ku ñuy waxtaane mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñu koy waxtaanee jar na jëmm ju nekk bu ko bàyyee képp koo yaakaar ne daañu ko waxtaanee ngir leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga wax ko ba àgg sax ndax yërmande gi nga xam ne moom la suñu borom di wax ndax am na. ngëneel yu bari yoo xam ne ci gàmm la ko nit mën a amee ndax boo gàmmoo màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te raxuloo ci lenn lu ñu sib màggal boobu nga ko màggal dana yokk sa ay xéewal ci adduna képp koo xam ne dimbali woon nga ci jataay bi wala ci jàng yi wala ci lu yoo xam ne ñi kat jadaja di xéewal xéewal mel nga ne gaa ñooñu ne kon bu ñu nee gàmmu du bidaa li ñu ko tuddee ijtihaad ijtihaad mooy farlu ci seet jaamu yàlla boo xam ne yaakaar nga ngëneel la cay jógee nga def ko nii doomu aadama di toogee benn bis xelam dem ci yàlla mu tudd yàlla loolu ijtihaad la li ngay toogee bis nga ne tey jii daal damay tuub sama bakkaar yi ma def yépp wala li ma sàggan lépp ci àdduna tey dama ko fas yéene tuub nga ne damay def junniy lixlaas defal ko addi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala nga defal ko sa bopp wala nga toog ne bis bii bisu altine wala bisu ajjuma dama koy woor wala guddi ajjuma gi wala guddi altine wala laylatul qadr wala guddi gu mu doon nga seet jaamu yàlla gula jubu boo gën a mën a sellal nga def ko ca loolu la ñu tuddee ijtihaad gàmm noonu la demee kon buñ ko tuddee bidaa dañu daal di wàcc yoon wi ndax bidaa ak réer la ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee borom téere yi wax nañ lu bari ci guddi gi nga xam ne ci la sallallahu alayhi wasallam dane adduna wax nañ ne asamaan yi juróom-ñaar dañu leen di waajal keroog bis bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane ne adduna malaayika yi ci seen bopp di ndokkalante ñu ubbi bunti yërmande yépp bunti asamaan yépp iblis ser sax loxoom di jooy di wax xeetam wi naan leen musiba am na ndax li nga xam ne mooy xeet li jaam ñi ci guddi gi la ñëw ci adduna te dana xott yoon woo xam ne ku ci jaar texe te man li ma bëggoon moo di yoon wu bon wi ma jaar ma bañ cee wéet ñëpp ànd ak man jooy yooyu iblis jooy ci guddi gi fekk na jëmm joo xam ne xam na ne lépp lu neex yàlla ak lépp luy dimbali jullit mooy li naqari iblis la ko naqari nag ba muy jooy bay janloo xeetam wépp di leen def tasliya moo di di leen defal loola ne lu rëy rëy la guddi gi kon li ci nekk ba naaw taarix dañu ne nekk li dund gaa yu baax yi fi nekkoon boo ko defee yow mi koy wax ak ki ko déglu naqar yi ñu amoon nga naqar lu ca lu baax la ñu amoon nga bég ca yow ci sa bopp su boom daf lay boole ca nga neel la ñooñu lay am rawatina nag kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkente ne dañuy waxtaane yonente bi alayhi salatu wasalaam du nu mën lu dul tàmbalee ci li ñuy wax annubuwa annubuwa mooy lan ak yonent ak yonent lu diis a diis a diis la te doomu aadama ci boppam dafa am ay doye di doye di ak néew kattan di fàtte di jaaxle di juum dëkk ci adduna ji nga xam ne su borom daf ko bind bind bu xam ne mooy dëppoog dëkkinam bi muy dëkk ci adduna si ci suuf si yonent nag di koo xam ne doomu aadama la nit lay doon nit lay doon koo xam ne nag suñu borom daf ko bind bind boo xam ne lu rëy xaj na ci moom attan na lu diis loo xam ne doomu aadama yi attanuñu ko waaye nag niroo gu mu niroog doomu aadama di doomu aadama juddoo ni doomu aadama di juddoo liy dal doomu aadama lépp di ko dal luy metti doomu aadama di ko metti loolu tax na ak li leen yàlla defal ci seen biir ci seen xel ak seen i xol lépp daañu leen yëngal sabbi leen wayafal melaw doomu aadama woowu ci ñoom teg leen lu diis ba nga xam ne seen xol dana gën a sori adduna ba nga xam ne du am lenn lu ñu bëgg loo xam ne dana leen dana dox seen diggante yàlla wala ñuy fàttaliku loola ba duñ nekk di fàttaliku yàlla tiis woowu nga xam ne yonent yépp teg nañ leen ko bi nga xam ne bëgg nañu ñu attan yan bu diis bi ñu leen di yan tàmbale ko ca ibrahima alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne gannaaw rasulullahi moo gën ci mbindeef yi xam ngeen ne bi mu daataan gare adduna fekk na baba buur ba nga xam ne moom la ñuy wax Namruud moo géntoon gént gu doy waar ne ki nga xam ne moo koy folli jële ko ci nguuram gi dana juddu ci jamono yooyu ñiy rey xam ngeen ne nura na foofu yonte yàlla Muusa ñiy rey bépp liir boo xam ne juddu na Ibrahima nag bi ko yaayam juree dafa dem ba ca àll ba mu nëbbu ko ca xunt ma bàyyi ko fa di ñëw di ko seet si di ko nàmpal bàyyi ma tam di ko seet si Azara bi nga xamee ne Ibrahima mu ngi xàmmee tuuti mu nekkoon xale bu rafet bu am bët mën a xalaat lool nag lu nekk xelam di ca dem mu di ko jéem a lijjanti benn bis yaayam agsi bi mu ko naam bi ma ko joxee lu mu lekk ba noppi toog mu daal di xalaat xelam ne ko waaw yaay yow ku la man ku ma moom mu ne ko man maa la moom mu ne ko ah waaw waaw yow ku la moom yaayam ne ko xanaa sa baay mu ne ko waaw moom sama baay moom ku ko moom mu ne ko xanaa Namrood buur bi mu ne ko Namrus moom ku ko moom mu ne ko eh noppi mu noppi bi nga xam ne yaayam dem na ca kër ga waxtu bi bàyyam war a ñëw di ko seet si mu ne ko xale bu doy waar rek boo demee dana la laaj lu la jaaxal mu ne ah lu ma jaaxal man mi mu ne ko waaw mu ne ko demal rek bi mu demee Ibrahima ne ko waaw bàyyi yow man ku ma moom mu ne ko xanaa man ah sa yaay mu ne ko waaw ku moom sama yaay mu ne ko man ah yow ku la moom mu ne ko Namrud bi waaw ku moom Namrud mu dóor ko daan ko ci lex bi ne ko noppi Ibrahima noppi waaye ba tey sikki yi ak xalaat yi mu ngi daw ci xelam rek déggagul lu ko doy lu mu mën a jàpp mu ngi xalaat rek ba mu guddi ba mu njëkkee génn muy guddi ba tey wóoloogul ne buur bi dana ko jàpp rendi ko ndeyam ak baayam wóolooguñu loolu Ibrahima génn gis biddéew yi bi mu gisee biddéew bi xalaat ne xanaa ci bopp moo ko war a moom ndax ñu ñu ko wax ne ñoo ko moom daal doyuñu ko mënuñu ko moom biddéew bi so mu ne ah kii de du sama borom gis weer wi weer wi fekk mu ne kii na nga ëpp xanaa mooy sama borom weer wi suux mu ne déedéet man daal kuy suux neexuma jant bi fenk mu daal ne kii nag xanaa mooy sama borom jant bi so mu ne ah sama borom de gisaguma ko waaye maa ngi koy ñaan yàlla na ma gindi ndax bu ma bàyyee ma danaa bokk ci way réer ñi du ma xam ki ma moom du ma xam ki ma bind te kon du ma texe Ibrahima daal di def noonu bi mu toogee ba nga xam ne mag na tuuti ba ñu delloo si ko nekkatul liir bàyyi menuisier la woon boo xam daf daan yett ay xërëm ay poupée di ko jaay ñi koy jaamu di ko jënd ñi jaamu xërëm bu ko bàyyam joxee xërëm yi rek di ko ko jaayloo fekk xërëm yi rek la bañ ci àdduna bu génnee sànni ko di dajeeg nit ñi di leen wax naan réew mi dañoo réer lii ñuy defar ci seen loxo ba noppi di ko jaamu ak ndox la ndax lii mënu la jariñ kenn dara ñoom ñi ko sàkk ñoo ko war a moom waaye mu mënu leen a moom moo leen waroon a jaamu waaye ñoom waruñu ko woon a jaamu ndax ñoo ko liggéey ci seen loxo ah gannaaw bàyyam nag day liggéey di jaay mu nga yàq mbiram ngi tax nit ñi dootuñu jënd kon li muy liggéey te kon dana ñàkk loolu metti ko mu dal koy génne ko yow dootuma dëkk ak yow ndax sama noon nga da nga maa añaane li nga xam ne ci laa jëlee sama wërsëg di la ci dimbali nga fas ko yéene yàq Ibrahima dem waaye fu mu toll rek mu ngi xalaat boromam di xalaat réer bi nga xam ne nit ñi réer nañ ko di jaamu leneen lu dul seen borom benn bis ñu am feet ni ngeen koy faral a dégg rek daa ñu dem ca àll ba def seeni cérémonie Ibrahima wuutu leen dem fekk béréb ba nga xam ne ca la ñu taxawal xërëm yu mag yeeg yu ndaw yeeg yépp mu daal di fab semiñam ñëw gor yépp fab nag semiñ wi wekk ko ci bu mag bi bi ñu ñëwee jaaxle ku ko def bi ñu woowee Ibrahima mu ne leen laaj leen xërëm ju mag bi maanaam yàlla ju mag ji gàddu semiñ bi xëy na moo leen ko def ñu seetaat seen xel xam ne jaar na leen fu sew ne ko waaye xam nga ne kat yii duñu wax mu ne lu mënu la wax buñ koy gor du mën a aar boppam ngeen di ko jaam yéen ku leen gën a def amul xërëm yooyu nag buur bi nga xam ne moom moom réew mi ci la daan jaamu ñu daal di mere Ibrahima lool waaw xam ngeen safara wañ ko taalaloon ba sànni ko ci suñu borom seral ko mu génn nag jóge fa dem Palestine nga xam ne kon tumuranke gi mu tumuranke suñu borom a ngi bëgg xolam génn ci adduna génn ci ndey génn ci baay génn ci lépp lu ñuy bëgg génn ci lépp lu ñuy jëriñoo ngir dellu ci yàlla kese gis ngeen ne ulama yi dañoo werante Palestine la wala xijaas la ki mu rendi doomam ji mu re bi mu bëggoon rendi te suñu borom digal ko ko ndax ismaila la wala isxaaqa wala maa yi wuti nañ ci li gën a lëng moo dina ismaila la bu fekkee ne palestine la ko doon reyee mën nay kenn ku ci nekk waaye dafa am ci tawreet bu ñu waxee ne ibrahima bu ko suñu borom di sant mu rey doomam jooju benn doom boobu rek la amoon kon mënul nekk ku dul ismaila ndax bi isxaaqa juddoo ameetul benn doom kon ñaari doom la am bu fekkee ne itam xijaas la ko reyee Isxaaq moom demul woon xijaas moo yaayam ñu ngi woon Palestine bi Ibrahima yóbbu waa Haajara ñi nga xam ne mooy yaayi Ismaila te booba Makka kenn niw fa waajur xuma fa njëkk fekk ko fa booba moom jenn doom dong la moo fa nekkoon Isxaaq ma fa dem. nga xam ne kon suñu borom ku ku mu nar a yónni dana la xiit xiital ci àdduna fitnaal la ba doo ci ba sa xol génn ci ak sa xel ngir nga dellu ci sa borom kese ba. sa xol bi lu yàlla du ci nekk gis ngeen ne Moussa alayhi salaatu wasalaam bi ko suñu borom nattoo bi mu dóoree waaja mu dee dañu bëgg koo jàpp fitnaal ko am ku ñëw laa biire ko ne ko yow kat la ñuy fexee jàpp ñu ngi wax ne nit ka yaa ko reyoon mbërki démb kon nag buñ la jàppee dañ lay rey mu dal di génne misra dem ma yàlla xam ngeen ne yoon wi li mu ci daj coono yooyu muy daj yépp ngir suñu borom def adduna soof ko ba dootu bëgg dara lu dul lu nekkul ci àdduna te xajul ci àdduna muy yàlla bi mu àggee ci yont yàlla Shuaybu xam ngeen ne sàmmal na ko fukki at ci lenn ci wax yi loolu lépp ci tumuranke ak suñu borom di ko naqaral ngir mu bañ a aj xolam ci àdduna ni muy def xaritam yépp noonu Moussa bi mu wàññi ko ak soxnaam jóge Madian xam ngeen ni moom safara la gis lu mel ne safara lu leer kon kaawteefu suñu am la ko suñu borom wan wuti nag Muhammad alayhi salaatu wasalaam daan ko waxtaane moom ni nga xam ne noonu la ko suñu borom tàmbalee wan boppam ba di ko yen yen bu diis bi Moussa dafa seen luy leer fekk moom ak soxnaam ak doomam liw nañu lool mu ne mu ngi seeti loolu bu mu jubee béréb ba muy gën a leer ba suñu borom wan ko ne maa ngi ni maay sa borom du jëmmi suñu borom de la gis ndax suñu borom moom bët mënu koo gis laa tuddee ko lëb saaru bi nga xamee ne nag suñu borom wax na ko loolu su mu mil sa dàll yi Moussa gis kéemaanu suñu borom suñu borom tiital ko ci yet wi mu sànni woon mu nekk jaan ba jaan ji dàq ko gëdd ko am na ñoo xam dañoo defee ne Moussa dafa ragal ndax bi mu reyee nit ki daw génn réew ma ak bi mu sànnee yet wi mu nekk jaan jaan ji gëdd ko mu daw ak xew-xew yu bari fekk na déedéet suñu borom la ragal dafa ragal ne suñu borom a koy feeñoo ci wet googu ragal gi mu ragal suñu borom moo tax muy daw bi nga xamee ne suñu borom jox na ko kéemaan yooyu yëpp ba yooyu yëpp wëlbati xolam ba moom ko la ko soog a yebal nag ci firawna ak li mu dajaat lépp xam ngeen ne nattu yooyu yëpp ngir tësliye la jëriñ ngir mucc ci àdduna xam ngeen Isaa itam moom it te fekk na nag li tax a jóg waxtaan wi Muhammad la du ñooñu waaye ñooñu ñëpp wan nañu melo yi doomu aadama mel dañ koy daanaka dindi ci ñoom ba ñu set ndax ñu attan mbirum yàlla mi nga xam ne dafa diis diis goo xam ne yaramu doomu aadama attu ko attanu ko xolam attanu ko Muhammad alayhi salaatu wasalaam bi ñu nettalee ci ni ñu ko- ñu koy faral di déggee ganeem àdduna fonk gi ko suñu borom fonk kéemaan yi nga xam ne Amina yaayam gis na ko muranke gi commencé bi mu daataan gane àdduna bàyyam jóge fi yaayam itam mu am juróom benn at mu jóge fi loolu lépp suñu borom di ko xor ñooñal moom it rek ngir bëgg aju gi mu aju ci boromam gën a mag ba àdduna du am dara ci wàll ci moom xam ngeen ne bi mu juddoo te fekk amul baay ah ahlu baadiya yi daan ñëw nga xam ne fi ñu daan jële wërsëg mooy dañuy ñëw màkka di fab liir yi dem di ko nàmpal ak di ko yar ndax arab yi dañu ne woon dëkk bu mag jawwam baa ko gënul ci xalel yóbbu ci àll ba nag mu màgge fa moo koy gën a jox wér gi yaram moo koy gën a jox ak njàmbaar moo ko mooy tax mu miin fitna ak xiif ak mar gannaaw moom nag bàyyam nekku fa xalimatu saadiya ñam àndaloon ñépp dal de ku ci nekk am liir boo yóbbu moom nag mu romb liir bi amul bàyyi wàcc ko fa gannaaw bi nga xamee ne nar naa dem ci ak loxoy neen la dellu si jël ko xam ngeen ne am na juróomi at ca baadiye ba da ngeen nett dégg ñuy nettali shaqu sadri xotti gi ñu xotti dëndam ba xar xolam ulama yu bind ci lu bari wax ci lu bare bare bare bari werante ci werante yu bari xista bu ni mu demee li ci gën a siiw moom ak beneen xale la xalima amee woon ñu daan sàmm xar yi ci gannaaw kër gi benn bis moroomam mam àndaloon ak si di xeex ak i xel ne leen daw leen seeti sama mbokk mu Quraysh ma day ñaari góor jàpp nañ ko daaneel ko xot ci biiram fa feeñu toll ña ngay lëñ lañee biiram xalima daal di tiit tëpp mook borom këram ñu daw bi ñu dikkee fekk yenn riwaay yi ne ñu dañoo fekk mu taxaw kanam gi xaw soppi ko tuuti ñu ne dañoo fekk mu toog kanam gi xaw a am tuuti poussière waaye mu calme mel na dara xewul ñu laaj ko ne ko waaw lu la jot ki nga xam ne mooy jëkkëru xalima fab ko taf ko ci dëndam noonu ñoom ñëpp dañoo tiit ndax defe ne seytaane wala jinne moo ko fee ñu def loolu ñu ko laajee ne ko waaw lu xew ak loo gis mu ni man daal damaa seen ñaari forme yu weex tàll yu mag di naaw di ñëw ma jàpp ne ay picc la bi ñu dikkee ba jege ma ma xam ne du ay picc bi ñu bi ñu wàccee ci suuf nag ñu dox ba jege ma kenn ki daal ne ne morom ndax kii la mu ne ko waaw kooku la bi ñu dikkee ñu tëral ma daal di ubbi sama fii génne sama xol xal ko xar ko am na yu ñu ci dindi sànni ko fu sore domin ñu jaaxle wala may werante ndax xalima daf koo delloo ci boobu yoon wala delloowu ko delloo gi ñi ne ñetti yoon la ñi ne ñaari yoon ñi ne ñetti yoon la ñoom ñoo bëgg a weddi xew-xew bi xew-xew bi mu arrixoon yi nga xam ne ñoo ko weddi ñëpp amuñu fu ñu sukk fenn fu dëgër li njëkk a tegtaloo moo di ne Halima day ak borom këram ki leen wax ne Mohammed ñaari góor jàpp nañ ko ba xotti biiram xaleel dong la waxi xaleel kenn war koo mën a sukkandikoo ñenn ñi ne dañu ne ñaari yoon daal la Halima dem ak moom Màkka kon bu fekkee ne bi nga xamee ne xew-xew boobu am na bu demaatee ak moom Màkka kon ñetti yoon lañ fa dem te kon wax yi dana wuute ñi ne ci weddikat yi suñ borom soxlawul di xotti biir ak di xar xol ngir di ci bind lu bon mën na koo bind benn yoon rek bind bu gën a mat te du aajowoo loolu ñoom ñëpp seen tegtal nax na leen njuumte ci am suñ borom xam ngeen ne xar dëndu nit xar xolam ñu ñëw gisuñu ñaw ñaw gisuñu xotti ko xotti ko gisuñu deret xam ngeen ne kooku bu ñu nee suñ borom mënoon na aajowoo woon di xotti xol bi xamuñu la ñu gis ak li ñu nettali lu mu doon loolu lan la li ñu wax irhaas mooy dikkal yonente yi bi ñu leen daataan yónni feeg yónnee bu ñu leen kawteef yu feeñ ci ñoom irhaas lañ ko tuddee loolu du dara lu dul tegtal la ne ku sell la lii doomu aadama yi di am ba manqué moom amu ko misaal mi nag dañ leen koo dañ ko wan yonente bi sallallahu alayhi wasallam wan ko xale bi rek mu dikkee noonu ñu gisee ko noonu waaye baatin ba xotti dëgg nekku fa dindi fa dara nekk fa misaal la mu leer moo xam ne dañ koo jëmmal loolu ñi xam mbiru tasawuf xam nañ na mu demee te yàgg nañ koo gis ci ñu ne xaleel ay waxam duñ ko sukkandikoo njuumte la xaleel am na foo xam ne ci sharia sax ci atte xaleel la ñu gën a nangu waxam ndax dañu ne bu fekkee ne xale yi dañoo bare dem ci àll bi ñu xeex ba am ku ñu jam feek mag duggul ci seen diggante daañu nangu atte xale yi daañu nangu attee xaleel fenn daañu nangu attee jigéen fenn seen seede daañu ko nangu dàq seede mag wala góor ndax xale yooyu bu fekkee ne mag dugg na ci seen biir bu ñëwee lu ñu wax dutuñu ko nangu waaye ba muy ñoom rek dañ koy nangu xale bi li mu wax du xale bi rek Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci boppam kon wax na ko ndax bu ñëwee noonu la nettalee kon ñooñu ne waxee xaleel la dañoo topp moo di ñi ci ëpp ñu néew ci jullit ñi waaye ñi ci gën a bari mooy mustafriqoon yi maanaam orientaliste yi orientaliste yi daan waxtaane seen milieu ak seen béréb ak seen jamono ni mu wuuteeg jëm jamono yooyale ak béréb ya ak la fa daan xew ak lu ci mën a am xalima delloo na xale bi ba mu demee li ñu ne moom la lay moom la wax ba delloo si ko dafa am ay nasaraan yoo xam ne dañu faa jaaroon gis ko di ko settantal yëkkati loxo yi xool kanam gi muri gannaaw gi xool mbagg yi daal di am lu ñu waxante dem xalima tiit ci ne ñii dañ ko bëgg a sàcc wala dañ ko fas yéene sàkkal pexe mu delloo ko ci yaayam yaayam moo ko rassuré ne ko na dellu dara du ko jot bu fekkente ne nag ñi weddi ne ndax kon ñetti yoon la xalima dem te ñaari yoon ñi moo gën a siiw te mooy bi nga xamee ne nasaraan yooyu gis nañu xale bi ba di ko lëñitu am yu ñuy seet ci moom ba gis ko fekk na bi nga xamee ne ba xotti dënn bi am na loolu am mën na fekk ne looloo tax xalima dellu muy ñaayoon te ñetti yoon ñi itam bu amee mu arrifoon yépp d'accord ci waaye daanaka lu néew ci lu néew dañoo